ñoom ñaar ay xarit lañ dañoo ànd ci guddi gi ñu am ay werante yu sew seen biir ñoom ñaar bon bañ jot xeex nag mais Babacar ci pare que da ko tuuse comme ñaari xale yu xeex bu kenn ki gaañee kenn ki ki ci des day bu ko riposté après pour fayo bon ñu àtte leen copain bi dem ñibbi Babacar aussi taxaw ci buntu kër gi di waxtaan ak euh, yeneen copain bi booy bi jël paaka fi mu ko fekk ci bundu kër gi fa la ko jamee seen bundu kër fii kër gi ñu nekk nii ci bundu bi. fa la ko jamee net bon fii la ko jam parce que ñoo ko doon sang mais gis nañu fii am na ñaari jam-jam fa la ko jam waaw. exactement man xaw ma nañ jotee parce que dañ ñu bari la ñu wax dañ ni dañoo werante werante du mën a xam ni jote tamit ñoom ñaar ñoom ñoo koy mën a comprendre no non de problème jigéen ñoom yor naa photo yu bari yoo xam ne ñoom ñaar ñu ànd teewaawoon ñooy fowandoo lépp ñoo koy defandoo des fois kii fanaan kër kii néegu Babacar moo nekk nii même boobu dafay fanaan xarit du jigéen li ñuy wax ak li am sa diamétral moo opposé du jigéen. ah non loolu parce que ñoom bi ñuy ànd bi ñuy xeex du fii. Mm. xeex bi après fii la mujjee mais commencé wul fii mais biñ ñëwee di xeex sama frère moom moo ko fekkee ñoo bokk papa. non nag man maa ngi koy tiim pour man ay fo la dañuy fool nii quoi pour man ay foola nii quoi après ki mu àndal ki ko longoon quoi man sorture ni eh kii da ko jam boobu nag la sam karaw bopp yi taxaw xam nga nit ak koo bokal koo bokkal deret réaction escalier dama ko tëb ñetti yoon xoolal ni escalier tool bu ma tëbee tëbaat dama ak suuf mu tëb côté bi tëb lii tëbaat na leen dama egg si poto bu mag bi la wéeru bi mu ko jamee fa la wéeru jugaatul ñaari jam-jam bi may téye bopp Babacar mi ngi lem ma daw dàq ji ko dama ko daw dàq ji fekk li ma rawee dafa xaw a sori mu mu daw dugg seen kër ëpp buntu kër gi ma dóor ci ay xeer moom moom na sant yàlla bi mu rëccee ba dugg seen kër. nee na atten nañ ko ba booy bi dem copain bi ñu ne dafa dugg ci bitig bi jënd ñaari paaka ñoom ñu àtte ko nangu benn paaka bi. nekk booy baraage na baraage na benn paaka bi fi ñëwee fekk fi mu taxaw jam ko daw dugg seen kër sam frère bi tamit net muy wàcc suuf dàq ji ko booy bu dugg tëj buntu kër gi bi mu tëjee bunt bi sama ñaari frère ne dañ koy rey ñu dajji bi ci la ñu police police bi mu ñëwee dafa yóbbu booy bi yóbbaale sama ñaari frère en tant que man may jóge sama kër grand mbaaw di ñëw dem hôpital ci dama sama frère di fekk foofu aussi expliqué ma ne ma nii la cas bi demee bon mais man bi ma nekk hôpital une heure trente laa fa def ñu ma booy ba gaañu na fi mu ko jamee ak fi mu ko fi mu gaañoo matul deux de temps waaw noo ki gaañu jamul da ko dóor daf xam ñaari xale yu xeex daf ko dóor booy bi am na gaañu gaañu fii parce que man dem naa police après fekk naa fa booy bi dèjà man ak commissaire bi xamante nañ lépp may dox pour mu am jàmm ba ñu am détails yu metti boobu xam woon booy bi gaañu sax bëgguma woon mu am ay euh, fayantoog yooyu mais booy bi moom kenn kenn jàmm ko wóor na ma ndax gis naa ko waaw fii la am gaañu gaañu mais kenn jamu ko waaw. Babacar moo njëkk a jam Jamil ñoom loolu lañ wax mais loolu kenn mënu si dara ñoom loolu lañ wax ñoom nañ leen bàyyi loolu comme ñoom am nañ xolu mën a taxawaat naan kii moo njëkk a jam kii te kii dee amul benn problème comme ñoom ñu comme yow yaa ni ñoom ñoo wax loolu alhamdulilah comme ñoom am nañ xolu mën a wax loolu rek alhamdulilah amul benn problème. waaw bi mu ko jamee bi mu deewee kenn yëgu ko déjà maag sama benn frère lañ ko wax loolu mu ngi nekk ci guddi gi ngi nekk ci guddi bon ay une heure lañ lañ ko wax bi mu amee une heure ñun bi ñu ñëwee waxuñu ko sam papa waxuñu ko kenn ci kër gi waxuñu ko kenn dañu fanaan ak ñoom ba fajar ñu doog leen ko wax te loolu guddi gi la man bi ma ñëwee maag sama frère yi bi may gaaree maa ngi gis waa kër gi yëpp a ngi toog ci mbedd waa koñ bi. ndax dañoo tëdd ñun rek ba fajar. ñu yeeñu fëgguñu fajar nu ñu jóg leen lan la Babacar dem na li lañ ci am may lan moo xew ñu ne dafa doon joteeg benn xaritam ñu xeex ñu arrangé leen ba xeex bi jeex xarit bi fekk si waat ko ñu yaakaar ne xeex bi jeex na mu woo ko mu wàcc seen kër ci buntu kër gi fi la ko jamee fajar gi lañ koy dogal ko papa boobu julli nañ fajar ba pare parce que ñun nelawuñ ci guddi gi sax mais comme bu dee famille bu demee ni nga neetal la ko ci guddi gi day am ay biir yu ci guddi kenn du nelaw dañoo bàyyi ba fajar gi bi ñu ba pare wax paa bi sama sœur doo ko yëg même waa kër googu ñoom ci lañ ko doo ko yëg ñoom it mais ñoom dañ jàppoon boobu gaañuwul naan dañuy def med pelante ñoom it certificat médical ba bi jigee gaañoo na nag ñoom aussi dañu wàcc mais ñoom xamoon naa seen diggante lu bari parce que dama leen daan gis ñu ànd ñu daan ànd ànd bu sincère ñu nekk xale yoo xam ne tuxuñu naanuñu duñu tux duñu naan duñu taxawaalu kër liggéey la xam wàcc même xale bi ku ko defit liggéey wàcc laa ko xamee chaque jours fii la daan gaare otom xamee woo lu dul jàmm mais daal tey daal def na seytaane def na seytaane booy ñoom ñaar pour diir vrai ku dee ak sa bàmmeel ñoom ñaar ay liggéeykat lañ booy bi ki reye oto la yor day daw dakaar Thiès pour kii atelier suudar bu magam moom moo koy gérer mooy gérer liggéey bi duñ tux duñ génn duñ sàcc ñoom kenn jara si mu fen ki deew ak ki ñu tëj yëpp sama yoon newul si ñoom kenn du ma ramb kenn du ma dimbali yow man xiyaam sàcc ñu fenuñu tuxuñu dugalul ñoo nekk koñ bii du ma ne amu fi de mais ñoom bokkuñu si ñu koy def dëgg rek moo neex yàlla ay xale lañ ndogal ñëw na metti na comme ñëpp mais du loo xam ne ñoom bu noonu dañ koy dund dama naan la ñu ngi koy dund. non métti woon na trop parce que déjà sama tante mooy yaay Babacar moom benn doom bu góor la muy Babacar seen ji kër gi vingt ans Babacar kese la am. benn kese am muy Babacar. muy Babacar moomu mu doon mu doon jàng aussi def BFM amul yaayam jox ma ko ne ma ci moom la yaakaar bon muy say loxo yaay xool loo ciy def. booy bi ñëw tamit vraiment am rythme boo xamante ni man mi mag ma daf ma jaaxal parce que xale bu doon jàng ñëw yàggul dara même pas deux ans mu am niveau bu doy waar ba man sama lépp moo ko géré woon atelier bi dafa nekk mën na 60 personnes. métallique waaw dañuy def métallique aluminium inox léegi moom mu ñëw lu mat ay mag yu bari ma jox ko mu diriger wala woon ni ki am na expérience bi nekkoon ci moom mais yaakaaru yaay moom moo tas. man mi aussi di frère am sama yaakaar dafa tas parce que amoon naa ci moom ambition yu bëree bëri te jàppale woon na ma tamit. waaw benn boobu rek la ci yaayam benn rek la ci yaayam yërëm yaayam ñun suñu amee xol bu metti ak xol bu jeex rek yërëm yaayam la ndax benn boobu kese la ci yaayam amul rakk amul mag benn càppaacoli boobu la looloo ñu ci gën a tee metti ndax yaayam tey ji su amoon kenn ku mu ko mën a xoolee sax naan kii ci man la daggee sax ñu mën a wax mais benn boobu rek la yaayam am mun tax mu nekkoon tamit ku sax ci xolu baayam ndax mooy caatam ñu bëgg ko lool am ci moom yaakaar lool ñu ñëw yàq suñu yaakaar boobu loolu nekk lu métti lool lool lool ci xol. non automatiquement bi ma koy wax yaayam waa kër kenn nanguloon wax ko ko parce que dañuy xam ni man mi frère am ñoo bokk papa automatiquement bi ñu ma ko waxee mënu ma taxaw ñu wax ko sama papa mu métti ci moom lool ban problème la ñuy am mooy pour ñu wax ko yaayam mais alaa kulli xaal da ko doon xam. ma ni sama tons bi nañ dem force sama xam mais bi ñu ko waxee automatiquement dafa daanu xam dañ ko wax rek mu daanu ci bi xam parce que neexul ci xool am benn doom même moo la doon répété ñàkk naa sama benn bi rayal nañ ma ko même wax lay wax ba nii ngay gis ni maire bi lekkul lim soloon démb ba tey moom a sol parce que moo nekkoon yaakaar yaakaaram vraiment yaakaar bu tas la sama papa amoon na ci moom yaakaar man magam amoon naa ci moom yaakaar lépp boole tas léegi dama dama sëpp dafa mel ni suñu borom dafa ma ni xool ko mu ngi jógee ci porte lampe bi ànd ak soor Touré bu dëkk kër Touré ñuy ñëw mi ngi reetaan mi ngi ko longu comme ñaari xarit yuy dox di ñëw am kon koo xee xeexul xeex mooy lu loo xam ne da nga koo gis ñu dóorante nii mu jam ko mais da doon dox di ñëw xeex mën na am loolu fekkeewu ma ko man li ma tiim action bi di mu amee ak loolu laay wax moom Mansour ñu ngi ànd Mansour Touré di dox ñu koy gunge ba gën ma jege affaire bi gën a leer ñuy reetaan mi ngi reetaan bay sigi ñoom ñaar ñuy mbalagante Mansour bi mu egsee ba lonk buntu kër gi moom ci boppam bi mu egsee ba lonk buntu kër gi la ko Mansour ne eh, kii li muy def fekk boobu moom mi ngi daw di ñëw man ma woon sax lu xew yor na paaka waaye dañ naan nag yàlla moom ma ko dogal parce que dee moom buy ñëw moom fu mu la mën a fekk fa ngay deewee parce que yàlla moo dogaloon ni fii lay deewee rek mu deewee fa euh, waaw booy bi nekkoon na koo xamante ni nii yàlla teel na ko dimbali mu teel a ubbeeku. 17 ans la am. 17 ans la xale la xale la man kan man. ay morom nañ sûrement magante wuñ dara jamil ay xarit lañ ñoom ñaar li tax man aussi métti wu ma dama naan ñoom ñaar ay xarit lañ ñëpp ñoo koy defandoo bon dama naan ndogalu yàlla mooy ñëw mu jaare ci xaritam xarit bi ngay àndal chaque jour moom moo la rey loolu dama naan ndogalu yàlla dëgg la. non xaw ma lu mu jotee. parce que ñi nga wax loolu peut-être mën na nekk ñoom parce que fii moom ku dee ak sa bàmmeel. mel euh, mën na moom mën na mën na wax lu ko neex mën na wax loo xam ne moom lañ jote moom ñoom ñaar la xam nga ñaar ñu ànd mën naa la woon seen benn image bu ñu jugee Tiwaawan yàggul seen benn xarit la papaam dee ci jouru tabaski. baabakar bàyyi suñu kër dem ànd ak ñoom ba guddi kon xam nga kooku lu mënta jote même bu doo dala rayal sa taaw sax. warul warul warul warul mën a demee noonu. non loolu nag amu ci jigéen na leen boole boobu amu ci ndax xale yi xamee ma leen sax ak di seeti jigéen duñu sax fréquenté jigéen ñoom ci seen biir rek wala fekk ñoom ci buntu kër gi fi lañ mooy seen fowukaay xale yi ay xale lañ amuñu sax vingt ans. noo non defaguñ palante nag parce que bu dee man en personne man li ma gëm ñun ñoo dëkk te ay mbokk lañ doonte xale bi rey na ko. mais man gëm naa ni intention am nekkuloon rey ko parce que kenn du tey dalee nit bu dee man en personne laay wax li ma concerné man bu ma sañoon plainte du am mais famille bi nag ñoom dañuy décider aussi buñ toogee wax euh, paa xamaguñ ban décision la jël waaw bu doon man kese moom yàlla xa plainte du am waaw waaw boo génnee kër gi nii troisième kër à gauche fa bi dëkk ñoom ñaar ay xarit lañ ñooy àndandoo chaque instant booy bi ko rey ak moom ay moroom lañ waaw duñu ay mag 17 ans lañu am ñoom xool ñoom ñaar 17 ans lañu am ñaar bi amee dafa jam booy bi am membre de famille ñoo xam naan booy bokk ko jam loolu nag métti waa kër gi te loolu amul. li gën a rafet mooy mbir amee bul xool ki njëkk def mais comme fee bi am na rek da nga fexe négocier mais ñoom ñu kii moo ko njëkk a jam ñu ne dañuy plainte loolu métti waa kër gi mais bu ñu jógee dee na nag lañu bu ñu fi ñëw la ñu ba léegi ñëwuñu fi moom ba léegi dañ mu fi ñëwee ñëw mukk parce que dina métti ci ñoom booy xool ci bees bees bi mais après am naa yaakaar ne solution dina am waaw vraiment. mais est-ce que ñooñu kër gaa ngi ne kenn gardé wu ko parce que bi affaire bi amee booy bi jam ko dem seen kër sama famille quelque dañ faa dem dañuy rey booy bi ñëw it police moo ñëw yóbbu booy bi yóbbu sama ñaari mag moo tax affaire yi a calmé parce que ñun góor ñi bariwuñ noonu quoi. waaw. réag non non Thierno Fall ak Khalifa ñoo arrêté taxi ak Cheikh kii taxaw ñoo arrêté taksi yàpp ko yóbbu boobu man aw ma woon waaw hôpital Thiaroye lañ ko yóbbu urgence fa la mujjee ci guddi si mais ñu kii xam naa ay côté 23h parce que affaire ay 22h 22h parce que moom moo yor kayit yeeg moo yor affaire bi yëpp quoi moo ci toppoon. non enterré nañ ko démb. Ah, ay 16 heures waaw incha allah ah, nañ ko démb waaw enterré nañ ñu fi nekk. boobu police moom moo ñëw ñaari ñetti agent rek ñoo ñëw mais à la amul benn autorité boo xamante ne nii ñëw na ci wala wax na ci waaw ñun daal li ñu gëm mooy ñun ñàkk nañ ñàkk bu wér parce que booy bi nga gis ne. yaayam def na vingt ans. dem na fi dem na fi vingt ans benn booy bi kese kese kese la fi am te am na yaakaar nii du fi amaat beneen doom mooy bu dee kër gi dafa beneen doom te feeb bi mu amee sama frère bi moom fi la ko lépp fekk d'ailleurs man bi may ñëw sax ñoom la agent yi jëloon yóbbu leen police mais moom fi ko fekk ndax bi ko booy bi jam fekk moom mu ngi wàcc bi ñu coow ñu commencé àtte moom mu ngi ñëw avant muy wàcc booy bi jam na ko ndaw dugg seen kër moom moo demoon seen kër ak sama beneen frère pour jéem a attaqué booy bi bon mais après nag bi ñëwee yàlla def na ci jàmm daal. non def kay li ñu li ñu war a def man moom du ma ni man maa parce que duma ma kilifaam. du ma kilifaam mais man maa bokk ak moom deret sam papa moo ñu jur. mi ngi ci suuf moom moo ñu jur mais bokku ak ñun dara ñun ñoo bokk deret ñun suñ dereet lañu tuur man nag du ma ni nii laay def parce que li ma waroon def instant boobu rek laa ko mënoon def comme instant bii nag newatul samay loxo. njaboot mi am na ci loxo yu ne. nañ leen nañ leen bàyyi ñu seetaan leen ñoom lan la ñuy def mais kantaa doo toog moom naan ay nii laay defal amul sens. dafa métti lool ci xool kenn ku nekk da nga koy ci sa bopp yaay xale bi xaw ma kenn xamul loo ko mën a wax depuis démb bi nekk ci dëj bi léegi mënuma ko sax xool ak bët. yaay ji mooy jëme mujj obligé da uti docteur mu di ko seet parce que dafa feebar fa feebar dafa am feebaru xol ndax amoo lu du benn doom am ci moom yaakaar ñu xëy ni la ko coppetal nii dafa metti moo tax may wax ci suñu réew mi war nañ ko seetaat bu baax war nañ ko seetaat bu baax ndax léegi xale yi li ñuy foyee ay paaka bari nañ xale yoo xam ne ñoo daan ànd guddeeg bëccëg subaa ngoon di fréquenté heure bu ne dañuy ànd ba ay 3 heures nekk seen biir néegu morom yi mais lii lii ñu lu ñu war a teg ci suuf la lu ñu war a seetaan la réew mi war nañ cee wax bu baax a baax xale yi dañuy foyee paaka bari na torop vraiment war nañoo teg paaka yi foyee ci suuf wala képp ku defati lu mel ni ñu teg la sanction yi metti ñu xam ne lii ñuy def lu yoon ba keneen keneen ñeneen ñi si des du ñu mën di def lii vraiment lii metti na ci biir xool metti na suñuy dëkkandoo lañ suñuy dëkkandoo lañ dëkkandoo yi yàgg bi ñuy judd fekk suñuy bàppa ak suñuy yaay ñuy ànd ñun suñu ànd bi suñuy yaay ak suñuy pàpp lañ ko fekkee ñun tamit ñu judd ñun ñuy xale yi tey xale bi def lii yaayam ñun ñoo doon ànd ay morom lañ xamee wuñ ko dara lu bon papaam aussi noonu man wax dëgg yàlla gisuma leen fi gisuma fi kenn ci ñoom gisuma leen xëy na ñoo ko xam xëy na fi dafa rëy ci ñoom ba ñu ñëw mais ñoo xam ne tax ñëwuñu man xaw ma ko wax dëgg yàlla gisuma leen fi en tout cas ñoo dëkk tout près waaye wax dëgg yàlla gisuma leen fi